give you the bubble barbershop L'actualité. On continue avec le nouveau waxtaanee suñu gaynde yi les Lions au beau fixe si une confiance war a dajeek Bénin wax également ci Michael Gorfey, nga Manchester United mais aussi wax ci B52 loolu ñu fas yéene ko wasaare ànd ci ak yéen indi ci ay leeral laata encore une fois gis ngeen gars li lii nag moo nekk Paris Saint-Germain footy deadline daal di koy fësal moo noonu leen ko yenn vidéo yi nag da ngeen dem ci Babo Show di ngeen fa fekk li nga xam donc Mayo Bou, euh, ak ñii di Real Madrid bu mujj Barça aussi qui di Dani Alves lépp ak un détail ngeen fas yoo aussi 44e euh, donc 44 ans plutôt est que le cinquième président euh, du Sénégal euh, plus jeune chef de l'État de l'histoire du Sénégal di waxaat encore en hein, tey ndamu sénégalais pour la sénégalais pour ñu ñoo qui? kii te li ma yàgg di rek ñu sax sama chaîne bi

mais tamit comme je dis Sénégal moo am fa mu tolloon fa dafa am mu soxla woon ñu gis kenn koo xam ne yaakaar nañ ne mën nañu fa yóbbu te Sénégal rek tax liggéey boo xam ne toog muy dox dox day jeex ku liggéey di nga fayeku loolu la ñu tolloon tey donc di wax encore yàlla nañu jik yàlla na ndam li jik Sénégal te li ñuy yaakaar aussi yàlla bu yaakaar tas mais aussi du ñu fàtte doomu aadama yi ci boobu du ñu fàtte ñu jël xaalisu réew mi ñoo ñëpp tey kii di njiitu réew mi ñu ngi koy xaar foofu aussi di ban taxawaay am fukki at ak juróom benn gannaaw bi mu dëddoo àdduna ki mooy Thierry Girardi ah ndaw yu bëri xamuñu ko fekke wuñ ko man bokk na si ñoo xam ne tey inspiré nañ ma ci cadre sport ah parce que kan la ko xam ne également ah, tey ñu ngi bëri ah, génération bees bi la ñu xam mais voilà c'est un monsieur qui a marqué l'histoire euh, du football en tant que journaliste ah daniel Alves dafay génn prison ndax caution bi biñ ko doon laaj fay na ko waaye nag passeport espagnol am ak passeport brésilien am nañ ko daal di téye ngir bu bañ a génn dem fenn parce que procès am jeexagul dafa def appel ah moo tax ñu daal di koy may liberté euh, provisoire provisoire hein ñii di wa Barça également ki nga xam moy donc Araujo mom dal de na sax gaay yi bay nangu proposition bu Bayern Munich mais finalement dal wa Barça dañ ko convaincre fi ni prolongation contrat de di ci des euh, bëreetul ki nga xam moy donc Araujo le joueur uruguayen et pendant ce temps également Barça a gagné ni Barça Real sonalee Barça góor ñi non le Barça jigéen ñi Real jigéen gagné xool leen 15 victoires 16 victoires 0 victoire pour Real Madrid 64 buts marqués par le Barça 7 buts marqués juste pour le Real Madrid donc Barça day day nogotu bu baax a baax a baax a ah ki xam donc également Oisberg le joueur de Tottenham les jugee Tottenham ah moom contrat en 2025 là hier mais daal film mu ne nii daal dafa changer agent et tout donc beaucoup de ci plan qui nga fait moo actuellement du poste de doon pour donc japonais daal dali dem qui a xam ne également Raphaël van der Vaart nee actuellement dans Hollande équipe bu baax mais bu ñu bu fekkee ne ki même fils de Memphis en forme ku ñu téye dañuy du ñu taxaw ak yow mais bu fekkee ne Depay en forme donc loolu day impacté ci li nga donc ne donc résultat yi ñu aura a am qui dit euh, van der Vaart daal di wax Ben Sebaini n'est jugee na sélection bu euh, Algérie ndax gars yi dafa am blessure quelque ah gannaaw mu ñu seen match ba pare il a eu euh, une une blessure donc c'est la demee ca clubam daal di dellu ju côté du Borussia Dortmund ki nak di Benjamin Pavard mon mi ngi walé ñi nga xam donc Bayern Munich né na instant Italie maa ngi fi ngi si jàmm ah, ñi dañuy kaf dañuy ré nit ñi dañoo et tout et tout et tout et tout man dal fi ni ne nii fii gis naa sama bopp toogaat fi at at le Benjamin Pavard daal di wax di sànni xeer wa Bayern Munich ki en également moy Amrabat mo mi tan ah, joueur de Manchester United mon fini dal gay ah, donc euh, Manchester du prolonger euh, li nga xam mooy donc euh, prêt bi dañ koy délo dañu prêt avec option d'achat mais ñom dañu lever option d'achat bi

yombatul ko donc Michel Ngor Faye c'est une bonne dynamique et c'est un jeune bon. xam bu fekkee mën am saison bi ñëw di ma xoon ci ki rek euh, Pape Matar bu amé confiance entraîneur mën jouer na jouer même bu dee quelques minutes sinon na fa jógee l'ambiance est au beau fixe avec les Lions du Sénégal amna yenn départ yoo wax naa la ko mais gis ni ci photo bi suñu génnee nak ñom di wajé ce match contre Bénin Aliou Cissé di defaat yenn changement ki nga xam ne Amadou Diouf dina am temps njortes nañ ko am temps de jeu bu ndaw ma bu fekkee day am tay nak entraînement du jour bi les Lions ils étaient là préparés et tout donc ñom di wajé ce match amical mais comme je dis mais en tout cas on espère que aussi li ñëw changement bi am ci équipe nationale si dëkk bi Sénégal on espère que changement bi dina am équipe nationale Sénégal waxuma ñu changer entraîneur mais mentalité bi dynamique bi liggéey bi fulaal bañu def par parloo bi loolu yëpp dinañ ci dellu de suivre benn dossier parce que Sénégal lañu de wax ci sport bi dafa daal di bëri te jamono ji moo ñu daal di indi ay gars yi information ñu bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir di leen wax na vive B52 vive le Sénégal su le ci le mën la gars on avance ensemble dans la magie de eSport TV et de Baba Show gars